ah ci sama gauche aussi maa ngi am ki nga xam ne mooy Rahim Dia ah Rahim Dia nuyu naa la. waaw ah, ngi lay fay yaay mooy ñu ngi lay euh, tey ñu ñëw seet si leen pour waxtaan ak ñoom li nga xamante ne mooy zikr kañ leen ci duggu lan lañuy def à loolu dama leen di bàyyi euh, ñoom ñu am lu ñu ubbi ak yéen ah sàmm bu ko defee ñu ñëw ci waxtaan yi. waaw macha allah euh, ñu ngi nuyu téléspectateurs yi yëpp di leen ñaanal yàlla. Euh, te di ko sàkk si mbooleem képp kuy seetaan émission bi rek mm. di wax ne ñu ngi sant yàlla di mm. julli si yonent bi mm. euh, sant suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim moom mi nga xamante ne comme ni nga ko waxee ci tudd yàlla ak zikr ci buntam lañ ko nàndee mm-hmm. kon euh, duñ def lu dul kontaan buñ ñëwee tey bëgguñu laaj ci mbiru Mawlana Cheikh Ibrahim mm-hmm. incha allah danañ ci gën a leeral rahim alhamdulilah ñu sant yàlla jullit si def saa sallam mm-hmm. di wàcce wàcce waayu mboole borom jullit mm-hmm. di ñaan suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim mm-hmm. suñu sëriñ Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu yàlla yokk seen leer yokk barke bi ci jaam yi ba ñëpp gis ko ci zaahir ak ci baatin comme ni ko sama doomu nday bi waxee rek que dañuy sant yàlla tey ay jeunes toog ci bërëbu Mawlana Cheikh Ibrahim di tudd yàlla mhm. te ngëneel gënu ko mhm. surtout mawlud bi nii ñu ngi ciy rafetlu incha allah ci émission bi xam naa bu ñu gënee xuus rek dinañ gën a yaakaar incha allah d'accord euh, ku leen seet si xam ne ay jikkarkat ngeen mhm. te di euh, may wax naan euh, raay oto oto otoraay bu jibee gaar dafay corne dama leen di bàyyi ngeen ngeen ngeen defal ñu dara nuruhu أول الوجود الوجود فهو أصل الأصول والأنجال صل يا ربنا وسلم على من وهو الكرامة وصفاء نور فترى ترى الأنبياء يا سماء متى ولك سماء لم يزل نوره بعين إلهي في انتقال في الكون بعد انتقال لم يساعك في أولاك وترقى لسنا منك دونهم وسناؤها مات أرديا وتجلى نوره في عبد الإله العالي إنما مثل صفاتك لنا سكما مثل النجوم الماء أجنب النسان يا ذو الأوان لأنه من أهل البهاء والجمال أنت مفباء كل فاد فمات ضر إلا أن نوئك الأدواء أما الألم فالموت أولى من حرام مقال أه للكمال لك زاد العلوم من عالم غاي من قال آدم الأسماء أجب الله له بنت وابيان وهنيها لها بذاك الوصال لم تزل في دمائر الكون توتا رلك الأمهات والآباء وما تناب لديهم لا برسول يلو لأهل المعالي تتبع بك العصور وتسمع بك الياء بعد الياء إذا في بني أسوى قرسراي نتوأ مفاد الخالي وبدل درة اليتيمة حسنا وما يبني في رقاء البالية تتبع بك الأصول وتسمع بك الياء بعد الياء تمام الحديث ظهورا أكوها تسعة لم تسد له بشغالي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم macha allah lii moom ko dégg xam ne euh, suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim mboolem taalibeem nee na nampatal ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. ñu dëgg ma li nga xamante ne mooy mawlud mm-hmm. suñu sëriñ doon wax ne ah Mawlud moom da ci nokkel bopam ba pare bala mu ci nokkel kenn. Mm-hmm. Mm-hmm. bon li ngeen def ni wax deug Yalla lu am solo la. Mm-hmm. alors dañuy ñew ci sen euh, ci sen carrière. Euh Samb lan mo len question bi pour yeen ñaar ñep la lan moo leen dugal ci zikr. waaw alhamdulilah posé nañ question bu jafe nak. ndaxte lu tax ma ne na. man si man ak ku melni Rahim. ñun dañoo nekk ay ndaw yoo xamante ne euh, Dakar lañ juddoo fii lañ yaroo fii lañ màggee fii lañ xamee Mawlana Cheikh Ibrahim te lu jafe la ci ndaw dakaar nga gis ko muy tudd yàlla donc ñun léeg-léeg bu ñu posé question boobu sax bu ñu xam naka lañ koy répondre léeg-léeg nga gis sikarkat boo xamante ne bu ñu ko laajee loolu dana ne ah man de loolu ndono la si mam sama papa laa ko donnoo wala amoon na kenn ku bokk ci dereetam koo xamante ne da doon tudd yàlla wala muy def lu niroog loolu waaye ñun judd nañ ci ay famille yi nga xamante ne du ci loolu la ñuy yëngatu daanaka voilà mhm. daanaka yëngatuwuñ sax ci mbiru tarixa mhm. ñun nag euh, mën naa ne si bàyyi lañ sikare mhm. dafa nekk passion su ñun parce que jël nañ tarbiya jaar fi ñu war a jaar ba egg fi ñu war a egg ginnaaw loolu nag après euh, tudd yàlla bi dab ñu

te tudd yàlla tawxiid la mhm. donc yow booy tawxiid loolu noonu jaam bi képp ku jullit dafa war a mhm. ñaari mën naa ñaar ba ñett façon ñu am sikkar mhm. sikkar bu feeñ bi ak lu nëbb li léegi nag ki nga xam ne da koy feeñal moom muy tudd ñëpp di ko gis kooku yaakaar naa ni loolu noonu wareef la parce que tudd sikkar boobu ngay def loolu jaamu yàlla la léegi nag euh, contexte bi ñu koy defee la ñun ñi di santé ci yàlla parce que tey ay jeune lañ amoon nañu opportunité nek ci yenen mhm. mais yalla nattooñu ci yoonu Cheikh Ibrahim ci lu mu mhm. gën mhm. kon dañ ci sante yalla ah bon certes nak euh, metti woon na ci ay situation yu bari parce que en étant élève ba nga jóge fofu doon étudiant nga war a topp sa vie professionnelle en même temps bëgg ko allier de cumuler dafay metti des fois les parents ils œuvrent essayer de comprendre mais alhamdulilah ba suñuy papa yi ak suñu yaay ñooñu ñu compréhensif la ñoom ñooñu ci pousse parce que ñom dañ man sama yaay daf ma doon bëri wax lu bëri naan ma mom il préfère euh di moy gis ben ndaw bo xamné day zikari par samedi mbala mu bala muy gis ndaw bi dem ay soirée yu mel non kon lolu sante yalla deug la légui nak euh, comme ni mu ko waxee rek tarbiya nañ ci ci anam gu rafet depuis ay 2007 mhm. di walu suñu serigne o passage Baye Mbaye mu Cheikhul Khayri mhm. nga xam mo ñu nandal ci ci ci yàlla kon dañ koy sante yalla ñaar yéen a bokk mu xadam non même pas. mais comment ça se fait Il y a beaucoup de xadam déjà. Mhm. ku leen gis ku gis Sam euh, Sam Zakir macha allah dafay Rahim ci mhm. côté bi. ñi dañ groupe lañ man mhm. ils na interpellé ma ndax Ils bokk groupe groupe nuñ tudd. Mais bon man gëw ma groupe lañ. ont daal peut-être euh, la comment ça se fait nu ngeen di waaw macha allah loolu tam question bu pertinent la parce que comme ni ñu koy waxee la rek moom wax na ko ci début bi. zikar moom tudd yàlla jaamu yàlla la. te jaamu yàlla comme nu ñuy dajee si jumaa yi. di ko bokkandoo di def di def ay sàppe. tudd yàlla noonu lañ koy bokkee tamit di def ay sàppe di ko defandoo. Mhm. te comme li ma wax rek ci début bi moom ndaw la man may ndaw. Mhm. ñu juddoo fii Dakar. raar na sax nga gis ñu gaaw ñu nangul ci sikar parce dañ naan nii. amaana juddoo wuñ fu nekk ci daara. Mhm. wala juddoo wuñ foo xamante ne loolu moo nekk seen mbir. waaw comme que daf ñu dab donc dañu tasante rek xamante ku nekk am cofeel ci sa morom. yàlla waaw yàlla boole leen. mais mais mais mais Rahim ah euh, néew gis ñaari nit yoo xamante ne ñu ngi bokk dara ci lu ñuy yëngu. Mhm. toll nek ay xalé mhm. am benn bëgg-bëgg bi and té té comme je le dis rek xam nga tay and bo gis la plupart affaire ego moo koy parce que ku nek da mën manala mhm. mais bo jiitalee yalla bi rek yaakaar naa ni and bo boo gisee lañ ci sant yalla deug la man dama koy gisee ci moom. Mhm. Euh, ba ñuy xamanté légui mëna wax na légui mu mat ay ñaari at. mais pour dire vrai à chaque ah, fois. waaw kon xam nga ni yagul mais té te yalla xam na ni. su ma ko soxlaa day ñëw te moom bu ma soxlaa damay bàyyi sama yitte yëpp ñëw. dëgg la te xam naa ne moom su may woo ci yàlla la may woo. dëgg la kon donc loolu moo gën a yitte te li ñu wax rek ànd dëgg mooy ànd ci yàlla. wala mhm. benn sëriñ bu baax doon wax. Mhm. naan nit kii boo leen di ànd da ngeen ànd ci yàlla. Mhm. te boo leen ànd ci yàlla nit ki bu gis mën na la. parce que boo gisee mën rek. dafay indi beneen problème. loolu moo gën a waral instant nii kii bi dem te en plus ay jeunes lañ. ñu nekk ci benn milieu. on se connaît. Euh, fii lañ juddoo fii lañ yaroo nangul nit ñi nangul la ci sikkar mhm. waaye nag lañ ciy sant yàlla dëgg yàlla sincèrement di ñu ngi koy rafetlu bu baax. yàlla na leen yàlla la fa jàpp. alhamdulilah sincère na lool. ànd boo xamante ne ànd ci ci yàlla la. ànd bi day jëm rek ci kanam. ndax moom vraiment bi ma ko contacté daf ma ne xaaral def na deux mois ah saa yi ma ko contacté mu nekk loo xamante ne vraiment lu am solo la yàlla ah. yàlla sàmm. Ah, loolu lu ciy dolli rek. Mhm. mooy ci li mu wax mooy maanaam mbiru ego. waaw loolu dafa am solo. Mhm. nit ki euh, su fekkee ne da ngeen di ànd. Mhm. te li nga yéene sa bopp rek loolu nga ko yéene. Mm-hmm. dangeen di mën a construire lu bëri. mais su fekkee ne maanaam da ngeen di ànd fekk li nga yéene sa bopp yéene woo ko. Mm-hmm. ci lu baax mm-hmm. dafay xaw a doy waar. ñu bëri dañu yaakaar ne kii ko tarbiya moom ma tarbiya te yàlla xam na ne man sax musu musuma gisanteeg moxadamam man Thierno Boubou si moom ma tarbiya xaar yàlla ñu ngi koy ziar de passage muy nit ku baax muy mag bu nga xamante ne yaraatekat bu doy la ci faydu bi mm-hmm. moo ñu yar waaw moo ñu yar man yàlla xam ne ni gisanteegu ma sax ak moxadamam pour walla leen rek ñun mbir mi baañes rek waaw baañes rek waaw mm-hmm. mu ngi noonu ba tey ci duo boobu nga xamante ne est ngeen di di waajal loo xamante ne laa da ngeen ñëw zikr bi. Mhm. diggante Rahim Dia ak Samb nit yóbbu ko beneen niveau. Mhm. beneen level ba ni ngeen di tàggatee xale yi maanaam seen cible dafa mel ni xale yi laa mhm. man damay toog di gis ñoo xamante ne bari na ci ñoo xamante ne dañ ma doon tàggu dem feneen waaye léegi dama leen damay toog dégg Rahim dafa war a dem zikaral diw dama fa bëgg dem seetaani ko. kii ne Samb dafay dem zikaral diw dama ko bëgg a dem mu mel ni. Euh, yéen a ngi capté xale yi di leen indi ci diine mhm. alors lan ngeen di waajal loo xamante ne wala ban plan ngeen fas yéene tëral pour orienter zikr bi euh, nangu xale yi ci li nga xamante ne mooy mbiri zaahir ah loolu lay lañ ci sant yàlla loolu je pense que ni dañ ci am mbégte pour tontu du genre mhm. parce que comme je le dis rek euh, avant tout nit ku nekk dafa am loo xam ne moom lañ la dénk mhm. xëy na nga xam ko mbala nga ñàkk xam mhm. té mbiru Cheikh Ibrahim dafa yaatu ba nga xam ni tay yow mi di tudd yalla tuddal ko rek mhm. mais xamoo yéene bi ci nit ñi di am peut-être dañuy yéem des fois nit ñi di wax ni ah ñu ngi rafetlu seen diw bi ak Samba mais dañ ciy sant yàlla mais comme nga wax ne dans le cadre projet rek euh, comme lépp loo gis rek jàngat la te dañ ci def nànk bon instant yi nii ñu ngi doon xalaat yu bëri comme yu mel ni ay clip ak yu mel noonu parce que bëggoon nañu sax ci avant gàmmu bi mawlud bi ñu génnee benn genre clip boo xam ne dañ koy officialiser ñit nii mhm. xam ko mhm. mais lépp loo gis rek bu jotee yomb mhm. ci projet yu mel noonu lañ nekk te xam naa ne incha allah du yàgg fii balaa daal ñu ngi ñaan yàlla fii balaa gàmm bi ñëwaat incha allah projet yu ñu bëgg dans ne incha allah ñu def ko tout en étant très conscient aussi tamit ci média professionnel mm-hmm. parce que il faut nga prudence. Mm-hmm. pour mën d'accord alors Samba est-ce que yéen ngi xel ñi nga ndaw ñi ñi déglu bien sûr. Mm-hmm. parce que comme ni ko rek xam nga mbiru dafa xaw doy euh, vision bi am ci ak vision bu am ci di waxtaan parce que peut-être ben nit moom il veut se faire connaître wala amna na lu mu bëgg commercialiser mais ñun daanaka doxuñu ci mbir bobu yag nañu am proposition pour commercialiser Zikar bi euh, sans figurer quoi pas sans propre mais ñun suñu objectif dëggantaan moy comme lim dembalee rek Zikar moom jaamu yalla la tudd yalla la jaamu yalla la comme ni ngay jullee comme ni ngay woré comme ni ngay ajeem ak avant tout donc euh, dañuy bàyyi xel aussi ci ñi nga xamantene

maanaam xaalu daayira yi sax moo lay ëppal solo ko loolu noonu pour montrer que mbir mi maanaam am disponibilité par rapport ak nit ñi moo ko gënal fouf parce que bo démé ba dugg ci monde professionnel ci zikër bi rek. donc après nit ñi ñu dootuñu ñu am amati accessibilité ci yow. donc lolu moo tax. te yéen da ngeen ko bëgg def yef yo xam ne ko bëgg def wa voilà c'est ça. li taxone ngeen dugg ci moy bëggal doomu adam voilà c'est ça que ça soit très naturel surtout. Mhm. parce que tudd yalla bi nga xam ci xol lay jóge. Mhm. xol rek la mëna a dëgg la mhm. té loolu nonu mo gëna tax sax ñun ñu tudd yalla parce que tay nit ki bo demee di tuddu yalla nga xamné li ni ci xol bi la joggé mhm. mahabba bi ñëw na kon kooku noonu ni mu lay déggo non rek lay rotte ko léegi nak euh, dans le cadre commercialisé yu mel non il faut ñu def ci prudence dans tous les plans mhm. parce que tay nit ki mën nga am optique bo xamné lu positif la mhm. nga ñëw diko def mais ñi ni duñu gisé non certes on est d'accord le monde est tellement maintenant Euh, technologique ba nga xam ne ni lépp looy def rek. Mhm. da ngay jéem a def nag doole ci moo tax boo gisee des fois ñuy sikkar nii di ko di ko def ci ay vidéo c'est pour permettre ak ñi nga xam ne ci extérieur la nekk des fois di ñun ni dañ lay woo comme nu mu ko waxee. Mhm. ñi Canada lañ lay woowee partout dans le monde alhamdulilah. di la di la woo di la nemmeeku mais dañ ciy sant yàlla parce que c'est grâce à Mawlana Cheikh Ibrahim mhm. te nit ku man lam yaskuru naas laa yaskuru laa ku du sant nit doo sant yàlla mhm. lu foofu la ñuy kiiwee rek di sant yàlla d'accord alors euh, ñu dëg ma li nga xamante ne nag mooy gàmmu xam naa ci euh, foofu la ñuy tëjee mhm. ñu dëg ma li nga xamante ne mooy gàmmu si sëriñ nag fonkoon ko lool mm-hmm. macha allah. Mm-hmm. alors man bëgg naa kenn ku ci nekk wax ma ci mawlud loo xamante ne nii ah, mm-hmm. allah dinañ xam ne kii taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim nan nga ci demee ci gàmmu gi. waaw bu dul dara gàmmu moom. Euh, bëri na luñ ci mën a wax. parce que tey jii tey képp ki nga xamante ne doomu aadama la rek. war nga màggal juddu yonent bi. parce que li tax ma wax loolu mooy. Euh, ñëpp d'accord nañ ne que si si yonent bi mm-hmm. la ñun ñëpp lañ amee moo wax na ko inni minallah wal muminina minni mm-hmm. moom moo bàyyeekoo ci yàlla waaye képp ku am ci moom ngay bàyyeekoo mm-hmm. waykat yi sax dañ koy wax naan ci leeru yonent bi lañ ñu bindee kon kooku noonu comme que ci leeram lañ ñu bindee màggal juddoom lu war la te loolu yonent bi moo ko jàngale woon sax mu ne màggal juddu bisu nit ki moo gën ñu màggal bisam bi mu génn àdduna yaa gis kon comme que yonent bi joxe na tegtal ci loolu euh, te yonent bi moom daanaka lu ñuy wax la rek maanaam nit ki lépp lu muy màggal wala lépp lu muy feete mhm. amul lu gën a rëy nga feetal yonent bi bisam ndax koo xamante ne yàlla ci boppam dafa ne moom ak ay malaakam julli nañ ci kawam mu ne yéen ñi gëm julli leen ci kawam mhm. kooku amul amul nit lépp lu muy euh, glorifier lu gën a rëy juddub yonent bi am na ñu bëri sax dañ ni wax ne maanaam loolu dañ ko sos wala bidaa la wala dara waaye amul lu gën a màgg yonent bi ndax ñu ngi màggal euh, bis bi alxuraan wàcc ci kaw suuf mm. te alxuraan boobu noonu amul sikkani ci yonent bi la wàcc bu dul woon yonent bi duñu xam lan mooy alxuraan donc borom alxuraan moom moo yoyoo ñu màggal ko sax que alxuraan yaa gis wax bi nag nit dina ko dégg mu xaw a jaxasoo mais dafa leer <laughs> parce que ki tax ñu xam alxuraan uh-huh. kooku noonu màggal ko moo gën sax màggal li mu wàccee yaa ngi dégg ndax si moom lañ ko bu ñu ko jaarale woon si woo moom duñ ko xam mhm. donc moom am na lu doon fa yàlla voilà c'est ça am na lum doon fa yàlla <laughs> loolu nag euh, tey jii tey ñun bàyyi loolu lañu xamal tey jii rek bi ñuy départ léegi ñu ngi woy ci ay abiyat yi nga xamante ne mhm. bàyyi ak euh, Mouhamadou Bichir yi ñu ngi ci màggal yonent bi di si way yonent bi ku mel ni Mouhamadou Bichir yi dafa am taarix mhm. moom nguur yu mag yi la daan way borom buur yu mag yi ba mu demee ba feebar dab ko mu mm. feebar feebar bu méttee méttee métti mu mm. jékki-jékki commencé di way yonent bi di way yonent bi ay way yu doy waar ba feebaram boobu noonu mujjee wér mm-hmm. moom kon xam nga ko kon xam na mbiru yonent bi noonu la demee ku mel ni Mawlana Cheikh Ibrahim nag moom tamit noonu la mm-hmm. moom dafa way yonent bi ba mujj wax sax mm-hmm. yonent bi mbóotam law na ci sama sama squelette yi ba jeex tàkk ci sama yaram bi mm. dem na boo wax sax ne moom mooy yonent bi ah. parce que xam na dëggantaan yonent bi valeur am te nit ki boo xamee valeur am rek day da ngay bëgg nekk moom ah. noonu la demee mhm. kon euh, ñu ngi ciy woo nag mboolem jullit ah. ci mawlid yi bu rëy boobu noonu nga xam ne mooy am Medina Baye nga xam ne mboolem àdduna bi bépp xeet mhm. bu yàlla bind ci kaw suuf day tase si bërëb boobu noonu bépp xeet nag laa wax ci liñ mën a gis ak lu ñu mënta gis waaw loolu la loolu moom sant yàlla rek comme ni mu waxee ci abiyaat yi ñu jotoon yëkkat li bàññees bindoon ci yent bi surtout nuuru bu hmm. mu wax na ni ci leeru yent bi sallallahu alayhi wasallam boo mboolem bindeef jóge kon loolu dañ ciy sant yàlla uhuh. xam nga tey euh, baay ba ñuy ba ko gasama doon laaj ci kaset bu siiw woowu noonu uhuh. ba koy wax na ni nit ñi di wax na ni gàmm bi daala uhuh. baay ba mu leen tontu da leen wax na ni xelawul ci nit ki di feete jouru maanaam ne jour juddoom di ko fête ñit ñi di ko gis. Mhm. yéen bi naan woy leen ma ci loolu xelul. dëgg la mais li xelu mooy que ni bu génnee àdduna ñit ñi di ko tàgg. Mm-hmm. nit ñi di ko woy mm-hmm. te bàyyi dafa leen wax ne ni bisu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñaan leen seen soxla ba xorom bi ngeen def seen biir ci sax ngeen ñaan ko mm-hmm. kon loolu loolu ngëneel la moom mu may ñu opportunité boobu noonu ñun ñi nga xam ne ni tey ay jeunes lañ amoon nañ ci yeneen yu ñu doon yu ñu nekkoon di yëngatu jékki-jékki ñëw foofu noonu di di gis loolu noonu ci ci salaatul faatee ñu koy wérd da lay wóor na ne tey ñaata salaatul faatee la ñuy addi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba gàmm kenn la ñu ne di wér kon loolu sant yàlla la. di ci wax tamit comme euh, ci ñu ngi dans le cadre de santé. Mhm. chaque année ñun ñooy couverture euh, kii nii poste santé yi nekk Medina Baye. Medina Baye def couverture waaw que ça soit clinique image, Assane mhm. que ça soit ci ju ci hôpital bi officiel bi. poste de santé de bi de façon générale. Mhm. ñoo koy def Gambie ak Gamouat par bas essence médicale. benn association boo xam ne c'est des jeunes. étudiants infirmiers. Nous sommes dans le cadre de santé. nous mhm. nous réunir pour juste rek les médicaments tous les matériaux qu'il faut. pour mhm. dire des années peut-être euh, information informations baax ne léegi mhm. ku nekk ak ni muy xitmaalee rek. ku nekk ak ni avons wax dëgg yàlla dëgg yàlla euh, màggal yent bi sallallahu alayhi wasallam nit ki daal boo jàppalee sa bopp rek mm-hmm. jàppale nga yent bi sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. te loolu ñun ñëpp xam nañ ko. baatinan maa ko zahiran maa ni mu demee. kon dañ ciy sant yàlla alhamdulilah. di wax ñëpp ñëpp nañ ko teewee. te loolu ngëneel la ngëneel la ka fay ra. macha allah alors mu ngi noonu ah, mbégte ak contentement lañ amoon gis ngeen euh, émission bi nga xamante ne ñëwoon nañ fii ma seq ko ak sama ñaari góor yi nga xamante ne macha allah ñun ñëpp ñoo bokk dénominateur que moom muy Mawlana Cheikh Ibrahim. ah wax dëgg yàlla ñuy ay ndaw yoo xam ne ñu ngi yëngu ci lu am solo. Ah, man Samb kontaan na alors euh, seen mot de la fin bu ko defee ñu tëjee li nga xamante ne mooy zikr. jëmale mm. ko ci euh, mawlud bi mm. euh, di. déwénati ñëpp rek. Mhm. ba pare di ndokkeel ñëpp ci mawlid bi nga xamante ne moom lañ dégmal waaye di remercier ñi nga xamante ne ñoom lañ àndaloon mhm. équipe technique bi yëpp Sow moo ko jiite moo nekk ci caméra bi mhm. euh, moom nag nee ren moom Medina Baye la jëm nee moom kenn ko téye. Ah. Medina Baye la jëm. macha <laughs> na ko programme moom. Ah, murid la waaye macha allah. dafa bëgg Mawlana Cheikh Ibrahim kon moom itamit war nañ koo mën a ndokkeel. waaye itam dañuy nuyu suñu euh, Tidiane Ibrahim Nias mm-hmm. ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax waaye tam di nuyu imam akbar imam Cheikh Tidiane Ali Cissé mm-hmm. di ko ziar bu baax ak mboolem njabootu Morana Cheikh Ibrahim ci diwaan mm-hmm. Medina Bay du ma lott nag ci di nuyu ak di sant sama maam Seyda ci Ibrahim Nias ndax daf ma defar jërëjëf euh, ma bàyyi leen ngeen joxe seen mot de la fin ñu tëjee ko si waaw fi nga daanelee rek ñun daanaka sax fa lañ waroon tàmbali mooy زياره دينيو دينيانا دي نيانال سونو خليفه مولانا شيخ تيجان ابراهيم نياس يالا دغرل اي تيرم غودل فانام بو باخا باخا باخا باخا باخا باخا اك توروندوم با شيخ تيجان سيسي دي امام شيخ تيجان سيسي نختي مبير مو دوي وار مو ام جامونو جي ني تول ني ñaari Cheikh Tidiane yi toog ci kaw. Ah. loolu euh, taale Baye war nañ ci fuglu bu baax a baax a baax a baax ñu ñaaral leen yàlla. ndax ñoom ñoo branché xaal bi instant bi ci pays bi. Ah. ginnaaw loolu tamit euh, am na loo xam ne mënul ñàkk ñu wax ko. Mm-hmm. mooy ne ci liñ ne. Mm-hmm. muy tarixatu Tidiane. muy faydatu Ibrahim. Mm-hmm. mu nekk benn mbir boo xamante ne. jaamu yàlla yi war nañ ci gëstu. war nañ ci xellu. ñu xam ne nekk na benn mbir boo xamante ne. du style et moo tax nit ñi topp ci Cheikh Tidiane dafa waxoon ni euh, taat yi faydatu ala asxaab yi yaa ngi dégg mu ne faydu dana feeñ ci samay mbooloo mu ne nag faydu bi buy feeñ lan mooy màndargaam mooy nit ñi danañ dugg ci tarixa bi ay mbooloo mbooloo afaajan afaajan loolu nag euh, tey yi tey ku am gisin mm. te amoo xolu kiñaan rek mm-hmm. war nga gis ne tey faydatu tijaan Mawlana Cheikh Ibrahim moo ko moom ndaxte tey ji tey Mawlana Cheikh Ibrahim rek nga gis mhm. mu nekk sëriñ tey ci mhm. àdduna bi mboolem xeet yi yàlla bind wuy si ko ci wooteem bi yaa ngi dégg mboolem foo xalaat ci rukk rukk rukkaan yàlla yi fi mu mhm. amal rek eh, ay taalibeem dem nañ fa tasaare fa diini lislaam tasaare fa faydatu tijaan andi fa faydatu tijaan te loolu bëgg nañ képp ku nga xamante ne rek yaa ngi dund di nokki nga gëstu ci. te xam ne euh, nekkul mbiru caaxaan. mbir la boo xamante ne yàlla da ko préparé fa ësël bu yàgg. Ah. tey nag ñun la ko jagleel nañ fexe ñu gëstu si ñu xam si. Mm-hmm. parce que kéemtaan bi gën a rëy rek mooy lii ñu dëkkmal muy mawlid duñ fa gis. mboolem xeet yi yàlla bind loolu rek maanaam jës bu la ci doomu aadama yi mm-hmm. mu seetlu lii lan la ay nit yoo xamante ne bokkuñu làng yaa ngi dégg bokkuñu lu ñuy lekk bokkuñu lu ñuy naan mais buñ fa dajee waaw buñ fa dajee ci bërëb bi mhm. day mel ni benn xeet la dëgg la macha allah yow boo fa ñëwee xaal bi bu la duggee sax doo gisati ne kii tubaab la wala kii chinois la wala kii naan la wala yu demee noonu mhm. kon bëgg nañ jaay lu ci macha allah waaw moo de la fin bi comme ni may waxee rek mooy mhm. dañuy santal yàlla encore une fois di ñaanal suñu sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane ibnu Ibrahim na yàlla guddal fanam yokk wér yaram bi ak cër gi de ni mel ñukay ñaanal aussi Cheikh Tidiane Ibnu Cheikh Aline Cissé mm-hmm. comme ni nga waxee rek ñaari cheikh yi nga xam ni ñom ñoo nekk ci kaw lolu lolu jazz bu la ci mboolem taalibe mm-hmm. di wax ne ne nag laa duñu mëna jéxal émission bi sans tuddu suñu sëriñ moy mm-hmm. maulana Cheikhul khair bi nga xam ni ci ci ci talibé bi ñu wax Cheikh baymé mu Cheikhul khair mom lañu naané mom tax di wax té comme ni sama mbëbit wax rek kulul nit doo sant yàlla. Mm-hmm. te loolu noonu euh, la gënal la te ñun dañ ciy sant yàlla. Mm-hmm. di wax ne ni nag taalibe bàyyi nañu mm-hmm. fàtte ni bu ñu mësee fàtte ni que ñun ñëpp ay jeunes lañ. surtout jamono yi nga am Sénégal c'est une c'est une période boo xam ne ni ay jeunes ñoo ko mën a mën a ñoo ko. constitué ñoo ko constitué hmm. kon donc nag dafa am lu war a jiitu mooy spiritualité boobu noonu c'est nga xam ne ne teewul sa professionnalisme mun nga ko dund du la yàqal dara mais hmm. sa spiritualité bi nga koy dund dafa parce que bu jiitee ci yow rek problème yi ñuy gis fii yëpp yu ndaw yi yëpp que que ça soit les francs mooy séeréer yu mel noonu hmm. yooyu du ñu sonnal te loolu noonu bu ñu amee base bi rek mooy l'islam bu ñu amee base bi rek mooy tarixa yi soit nga topp Cheikh wala nga topp Cheikh Ahmed Tidiane mhm. wala nga topp afan sëñ Touba yooyu yëpp dalay yokk ci yàlla te yàlla ci nattoo nañu ci buntu Cheikh Ibrahim mhm. ci buntu Maolana Cheikh Tidiane la ñuy la ñuy naanee kon dañ ciy sant yàlla mhm. di wax ne ñëpp mawlud bi incha allah ni ñuy góorgóorlu jéem fa dem te ngëneel la yàlla na lépp mm-hmm. yow tamit yàlla yàlla def jàmm barkeel télé bi chronique incha allah mm-hmm. yàlla yokk youtubeur yeeg mm-hmm. ba def ko télé bu mag mag mag amiin yaa rabbi barkeel bi saa sel jërëjëf waa kay sàmm kon ma bàyyi leen ngeen tëj waaw macha allah bàyyi leen ngeen tëj zikar xubuta yustatabu allahu allah الله وهو رقي للبرايا الله وهو للخيرات باب الله وهو أمن وأمان الله الله وتأم وشراب الله وهو در وهو كنز الله الله وهو لب ولباب الله الله إنا أرضنا ليس فيها الله الله قبطة لا يباب الله وكل بنا ليس فيها الله هبطة لا أراب الله إنني قبل البرايا الله حب شغل الجنان الله الله فهو أكلي وشرابي الله الله وهو ديننا وجناني الله الله ليس لي يوم قليل الله الله خير ما منك أتاني الله الله خير غذا قد ألاني الله الله حافلا لي كل آني الله مزق الذي جهارا الله الله أخرجني من مكاني الله الله دون ذنب غير أني الله الله في جناني الله الله حبت في جناني الله الله حبت في جناني الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله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 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القاتم لما سبق الناس رب الحق والآدي سراتك صراطك المستقيم وعلى آلي قدر مقدار عظيم سبحان ربك رب العزة ما يشركون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين